يا عيد يا عيد الفرح والسعادة عيد الفطر من بعد شهر الصيام من بعد شهر الصوم شهر العبادة بك نبتهج يا عيد في كل عام يا عيد يا عيد الفرح والسعادة عيد الفطر من بعد شهر الصيام من بعد شهر الصوم شهر العبادة ay bismillah bismillah bismillah alaykum wa wa barakatuh mbok yi mbok yi man la mariot fi ci saveur planétaire sha allah fas yéene dellusiwaat ak yeen niñ ko baxone di ci carton yalla di len ziar yeen ñepp di sen wacc way ma sha allah di len ñaanal yalla yu àddina ak àllaaxira mbok yi turki lañ len demalon tay ci wéru koor gi gis ngeen ko ni sen red lantern bobu noonu moy sen euh, lanti bu xonku bu rouge bobu noonu ñuy supp sen supp yu bu yaaba bobu nga xamantene bagage ci kessela neex xëdd neex ndogu <laughs> ñu pare dal di jël ndank suñu bër ruyal xëpp ci ndank suñu paprika ñew neeku ci réel mom ngeen di seen muy telli telli wi naa leen tuuti fromage ci kaw optionnel ku mu neex nga def ko ci ku mu neexul bu ko fromage fofu tag ay bismillah ñu xoos ba ci biir legi faram-fàcce leen bay ay wa assalamu alaykum ay mo ngok mbokk yi sha allah wala quwwata illa billah gis ngeen ko ni suñu <laughs> comme niñ leen faralé di talal ci kaw table bi tay mom inshallah Euh, turc lañ leen di demal seen euh, soupe de lentille bu neex boobu nga xam ne lentille bu xonq bi lañ koy defee macha allah soupe bu woyof te neex foofu la ñu fas yéene fël ak yéen tey jii incha allah ci euh, iftaar bi ndogu gi ku mu neexit mën nga ko xëddee parce que après dañ koy purée def ko potage bu kifin ba bëgg a voilà donc gis ngeen nii ñu ngi fekk suñu red lentil moom mooy lentille bu xonq bi ñu ngi fi ak suñu soble moom tamit carotte gaa ngi nii Euh, ñu découper pomme de terre baa ngi nele moom tamit facultatif pomme de terre bi comme neex mën nga ko ci bañ a sànni mais dañ ko ci bëgg kii rek pour affaire bi gën a riche gën a am doole. voilà donc euh, gis ngeen ni ñu ngi fi ak suñu tuuti cumin ok ci euh, suñu épice yi kii paprika la sweet paprika bi jël ma bu safkaani bi moom mooy fël-fëlu Maroc bi après dañ koy sauté ak beurre bi bu ñu paree sotti ko ci kaw lu bari ngay am. kii suñu curcuma la mooy turmeric bi yéen a ma ko gën a xam ñu ngi fi ak suñu sel ak poivre. ak euh, suñu huile d'olive voilà donc beurre bi vers la fin lay nous inshallah euh ñu mën ko dénga mam euh sauté euh, rek euh, paprika bi safé ko ko tout nonu rek mu après inshallah, nous di ngeen gis lima ma di wax. donc machallah soupe végétarienne yek ñepp mën nañ ci dem ba jeex yi parce que amna ay légumes et puis lentilles dafa bëri ay fer faire. ma gëna xam voilà donc. Ce soir, Inch'Allah, euh, je vais préparer une soupe euh, de lentilles, lentilles rouges, euh, style euh, turc. Voilà. Et voilà, on aura besoin euh, des lentilles, oignons, chop chop chop, découpés, quelques carottes que j'ai découpées chop chop chop, avec deux pommes de terre aussi que j'ai découpées. Ok. Et pour la pomme de terre, c'est facultatif. Ok. alors là, pour les épices, on a du cumin. Ok. et ça, c'est du paprika doux. Et là, j'ai du curcuma. Voilà, et là j'ai du beurre, un peu de sel rose, euh, du poivre. Et bien sûr, on aura besoin un peu d'huile d'olive pour euh, sauter nos nyamatos. Aïe, très bien. Merci. Aïe, mon gars, ni voyez, marmite. nous tout huile d'olive, un tout petit peu d'huile d'olive avec euh, un peu de beurre. Ok, rapidement pour nous sauter yubi yabayi, Voilà. mbokk yi nenañ ci reelu soble gi laaj bi dama leen ko fàttoon woon ça c'est euh, c'est la purée d'ail ok gis ngeen ko ni ñu tiital lii rapidement xaar leen ñu jël ko du bant bi gis ngeen ko noonu su ko defee ñu jël carotte bi ne ko ci réel parce que yi dañu dëgër carotte bi ak euh, pomme de terre bi voilà maintenant on laisse sauter mbokk yi ñu bàyyi ko ñuy relli relli ni touti ba ci kanam inshallah bu ko défé ñu raxas lante bi ñew na ko ci tuuti ay mango gis ngeen ko ni ya nga dégg na forme su ko ñu bi na ko voilà gis ngeen ko ni jaxase <laughs> gis ngeen ko nii voilà xaaral ma sànni ci assaisonnement bi léegi du sel poivre paprika euh, I'm sorry euh, how you call it? turmeric mooy curcuma bi ne ko ci réel daf ñuy dimbale tam mu gën ko coloré voilà un tout petit peu de paprika voilà et le cumin gis ngeen leen nii ay mango gis ngeen ko nii su ko defee nag ñu ñulu ko ak ndox bu tàng bi de l'eau chaude gis ngeen ni ndànk rek parce que dafay tëb voilà ay mango gis ngeen ko nii tere bien léegi nag ñu wàññi feu bi bàyyi suñu ingrédients yi ñor lant bi ñor pomme de terre beeg carotte bi oignon yi ingrédients yëpp ñor après nag ñu puré ko nii la yombee nii la bëree cafka te nii la neexee <laughs> xanaa wax ja jeex gis ngeen ni supp bi ke lepp ñan gis ngeen lante bi touti la def gis ngeen ni mu ma sha allah mom bu xasse ba ñor rek day sekki voilà léegi li ñuy def gis ngeen ni suñu nana bu waw la dry mint ok léegi dañu jël suñu hand blender bi ñu dal di wal yeufi mu puré ba nek potage ayo bismillah gis ngeen ni lañ koy def rek wal ko gis ngeen ko ni voilà ni mu melni baxna velouté na ni wala gis ngeen ni amna suñu potage légui nak ñu ñew sauté euh, pas sauté <laughs> ñu ñew ruyol suñu beurre bolé ko euh suñu keuf ki neko ci réel ma mbokk yi ñu ñew défar nak beur bi and ak paprika bi sanni ci toute huile d'olive wala mu ruy te du xam gis ngeen ko ni su ko defee verser ndank ci kaw soupe bi kuy lek nak jël sa citron tek ci sawet ne ko ci reel gis ngeen ko ni wala gis ngeen ko mbokk yi mëngoog gis ngeen ko ni suñu supp baangi ni paré na lentil la bu ko defé ne gis ngeen beurre ak suñu keuf ki ñu bolé won paprika bi ne ko ni rek ci kaw wala sanni ko ci nonu ndank rek tout tranquillement dégg nga maam daal di taal suñu këf ki bàyyi leen ñuy wëndeeloo ko mbaay mbaay xaar ma jël ni benn xobu mant bi rek ne ko ci car très bien suñu suppu red lentille mi ngi nii tey nag moom nee naa leen style turquie lañ leen fi indil neex ci boppam la def toq sa bann bu saañ ba réer la waaw saañ boo xamante ne fii saveur planetaire lañ koy waree ji mbokk yi macha allah di leen wax suñu yóbbu yaa ba tey jii nag ah sama maam laa ci yekkal nag waaw kooku mooy yaa awa jaxate cantaakun bu mag bi macha allah di ci yekkal borom këram di ci yekkal am di jàmmam yëpp naan ko mamboy yaa moom lii koo ci mayul nag moom xamal ne mooy loolu <laughs> aywa macha allah di wax ne que lii lañ leen indiloon tey fii ci saveur planétaire macha allah neex na ndogu neex na xëdd woyof na riis na dana fees biir te du xër ñee ñi kenn. <laughs> <laughs> mbokk di leen ñaan la baaraamu kaw comme d'habitude sela la wiccax mu bonde ba ci kaw di la baaraamu suuf la fente foofu wëndeelu aywa salaamaaleykum bon appétit عيد الفطر من بعد شهر الصيام من بعد شهر الصوم شهر العبادة بك نبتهج يا عيد في كل عامي يا عيد يا عيد الفرح والسعادة عيد الفطر من بعد شهر الصيام من بعد شهر الصوم شهر العباده